Ousmane Fall, le conducteur d'engin, le technicien de démolir de immeuble Lyon à Maris. waaw nooy na mom, nooy na parce que ci ñun ñi koy démolir liñ ci sentir mooy manque de fer waaw amul fer quoi ciment bi nag ma nga fa ba léegi mais fer da la am. am wàllu démolir bi rek lañ ci am bon li passé ñun suñu kii naw si mais si wàllu démolir bi nii daal ñu nekk si jamono bii nii daal ci lañ nekk quoi non yombul jafe na parce que R cinq la bon démolir bi xaw na am ay jafe-jafe tuuti parce que bâtiment yi dafa nooy et puis dafa kawe tuuti waaw dafa kawe il mu nekk loo xam quoi sinon rek da ngay am jafe-jafe bu bett. am ay feer yoo xam ne dañu puure bon am xeer yoo xam ne dañuy naaw il nga sol casque bon ku bokkul ci sànje bi tamit dañ lay génne parce que ilaa nga jël mesures yi ñu ci jël yëpp daal mooy mesure sécurité normal boo xamante ne da nga ko am doo ko mën a dugg ci sànje bi. dañuy bañ xeer day naaw te pare boo si boo si toj rek euh, dañuy wax ni ñi doon démolir fële ñooy ma yàqal loolu lañ siy bañ moo tax ñu jël à distance de cinquante yoo xamante ni daal kenn du fi jaar kenn du ko jege. ñun benn association conducteur d'engins lourds bu ne Sénégal man maay seen président encore bon ma représenté conducteur yëpp fii Sénégal fii yoo xamante ni képp kuy dawal peel rek si suñu asos boobu man maay sa président. boo xëyee le matin ban heure ngeen di waaw ñoo ngay commencé huit heures. huit ah, à dix huit waaw mais dañuy pause à une heure de temps quoi. waaw les jours waaw tous les jours waaw samedi dimanche lundi yëpp dañuy liggéey quoi. waaw parce que dañu am délai te délai bi lañ bëgg a respecté bon bala ñu ci yeggal ñu jeexal daal.